كمشكاة فيها المصباح المصباح في زجاجة زجاجة كأنها كوكب دري يوخد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور كمبلاوخ taqwa ay yàlla koo fi nekk bu la kenn nax lu coow li di bari bari bari moom rek la tànk yi nga séq ba ñëw fii moom la sa delluwaat moom la lépp moom la kumba nga ni laa ilaaha illallaah loxo ca tu taxwa eh yàllaahu yaa maaliku yaa xuduus rek moo fi ne waaye tànn na ki gën ñëpp gën ñëpp ci aalam yépp foo ko natt mu gën la buñ boolee ñi gën ñëpp moo leen gën jullil ci moom kumba fay yàlla yàlla nangul ñu ñu ngi doyloo rekk nuyoo yi nga xam ni su kilifa sëriñ Baye ma xujja nuyoo na ko teg ko ci loxo kilifa yépp macha allah ñu ngi koy ziyaara di ko ñaanal yàlla mag ju uuf ay rakkam la li mu fi ci ay orientation ak ci xam-xam ñu doon rek dem ñi bi dina doy yàlla yàlla yokk xam-xam bi wàcce ci rakkam bay njàmme xam ni miin na ko lool di soppe macha allah ci njaboot gi yépp moom it macha allah wàcce ci sëriñ max di sunu xarit damay wax ni ñoom ñépp ku fi toogoon fii ñu toog wax fii li ëpp lu ñuy wax ci xam-xam ci lépp yàlla yàlla yokk seen seen teraanga allahu di ko wàcce waat ci sëriñ Mamadou Jaxate di njaboot ci Baay Mamour Jaxate allahu xam ni ku ne xam na Baye Mamour ci taxawaayam ci tund wi wàcce ko ci kilifay kees yépp ñu ngi wàcce ziyaar bi ak yooyu ci ñoom ci ñoom yal na yàlla yokk fi xéewal ci raison bi ci raison bi yokku ko fii ñu nekk at bi yàlla tuur fi niiri xéewal macha allah di ko jël di ko teg ci loxo prési sàmba mu tegal ñu ko ci loxo représentant xaalis bi fi jóge léegi mu wàcceel ñu ko ci kilifay kees yépp ak daayira yépp macha allah di jëlaat nuyoo bi di ko teg ci ki ñu may occasion bi muy Baye Cheikh macha allah yaakaar naa ni sëriñ bi wax na ko léegi moom ak seydinaa bii ak njabootam yépp ànd ak waa kees gi yépp ak waa xombal yépp macha allah ñoo ñu may occasion bi li la sëriñ bi wax rek sànni nga xeer boo xam ni wala dugal nga bii boo xam ni macha allah waaye duñu fàtte mukk nag ki nekk ci sa ginnaaw xam naa ni Baye Cheikh maa ngi koy nuyu waaye mi ngi may joxoñ baaraam bi naan ma soxna sàng ci ginnaaw soxna xadi macha allahu la la yuusufa géntoon ba nettali ko ay wayjuram yaqub wayjur bi ni ko mbir la waaye bu ko nettali kenn denc ko keroog ba nu àdduna doxee ba gént ga réalisé wu ca la xam ni gént gam waxoon baayam mi ngi nii waaye bàyyi cheikh lala la Seydina Isaa waxoon nga géntoon ko ci ay nelaw kala yàlla boole it gisoon am lu mu gisoon gént googu tey dëgg la mi ngi nii géntu googu mi ngi nii fii parce que dëkk bi Seydi Abdullahi jaar na fi waaye daa jaar rek rom taawu fi dafa jaar rek rom tey jii nag lan fiy soog a taa ndox mi taa fi te dootu fi jug insha allah mani يلا في نك اسكا تي تانت بي طالب الشيخ اني في كو دون طالب الشيخ يكتي لسلوخ سرين توبا خمنا لكن نكو في امو في صوبي انا نيو صوبي سوبي الامامو انا نيو وانيان نيو سوبو يلا يلا daa mel ni gaa yi ñëpp lan sopp de waa ku bëgg dee dem aljana waaw ajjana ji nga bëgg ajjana ji ñu bëgg ñun ñëpp mënuñu saa dugg te dugguñu ajjana ji nekk ci àdduna inna fi dunya jannatan lan yadxulha إلا من دخل في جنة الدنيا وجنة الدنيا هي الإيمان بالله بلا دب الجنة جلي نيب بغ فوق نا دب الجنة الدنا تا الجنة الدنا ياني عندك موم دي دوخ ساي سوخلا كي نيو وايي فيك دوغو تي دو دوغو فالي àjjanay àdduna mooy nga fexe yàlla nekk ci sa xol ku àndul ak ci sa xol dugg aljana waaye àjjana jooju nekk ci yow nga koy wër fu nekk am na lu la gàllankoor sa digganteeg àjjanay àdduna loo xam ni boo ko dindiwul boo dajeek sa borom di nga موتاخ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك يا لنانا يا ايها الانسان وقل خط غي ديدت الانسانيه لا يوخ موي يوكي يومي جاري نيو سا خيل باسكو كو امول خيل بوكول يومي يور خيل xel mi nga xam ni ci nga rawe lépp lu yàlla bind yàlla nee na sa xel laay waxal nee na lan moo dox sama digganteeg yow waaw boo xoolee àdduna bi réew mi ñu bari yàlla nekkul ci seen xol na nga koy xame mooy wax yu ñaaw yi jëf yu ñaaw yi kenn nekkatul ci sécurité du réew yi nu wër du réew mi nu nekk te yàlla ku mu nekk ci sa xol doo tiit sécurité totale ngay am yàlla ku mu nekk ci sa xol sécurité totale ngay am doo tiit doo ragal waaye ku mu nekkul ci sa xol amal ay étage amal alal loo am boo ñàkkee yàlla perte nga gis nga bala ngaa xam màggug yàlla dëgg yow nga xam sak doyo di yow boo xamul sak doy do xam màggu yàlla bala ngaa xam amuk yàlla dëgg foog nga xam sak ñàkk yow boo xamul sag ñàkk doo xam amuk yàlla bala ngaa xam kantanu yàlla dëgg foog nga xam sa télé ku fi toog yaa ngeeg soxla boo xam ni fajoogul yaa ngi bëgg-bëgg loolu tële la kon foog nga xam si tële pour xam kàntanu yàlla moo tax yàlla ni lan moo dox sama digganteeg yow ba dugaloo ma ci sa biir xol dugal ca leneen li dox diggante yàlla nit bari na waaye mën nañ cee jël benn mu yóbbaale lépp mooy xubbu dunya àdduna bi ñépp danoo daw jëm ci àdduna problème yeeg xeex yeeg nguur yeeg lépp àdduna rek la noo ko amee baax na na mbokk gi yàq waxal lu bon rayal jaaral ci bakken lu am baax na àdduna rek moo tax moo tax àdduna raasu kulli xatiatin lu bon rek àdduna la te nag àdduna laajal gaa yi am ay milliards ba pare tey lan gën a sonn ci àdduna laajal ñi siiw ba pare tey lan gën a sonn ci àdduna laajal laajal àdduna yonent bi nee biiru doomu aadama suuf rekk ko moo koy fees leneen lu dul suuf bu la ko joxee mu res na yootu leneen ba keroog ngay dugg ba adduna moo tax imaam déggal imaam adduniyaa bi tax ñuy bi tax ñuy xeex di bi tax ñuy xeex di ko ngoonte moom dug dara dunyaa bi tax ñuy xeex di dongoonte moom du dal du sax ci mbindeef ngir dee du koy bàyyi muy dal ba dunyaa bi tax ñuy xeex di dongoonte moom du dal du sax ci mbindeef ngir dee du koy bàyyi muy dal ba dunyaa bi tax ñuy xeex di dongoonte moom du dal du ku tey bàyyi mooy dal ba imaam nee na adduna rek moo tax gaay di daw ak daanu lu ne ñu dugg ci waaye nee na du dal du daluwaay ña ko defoon daluwaay yëpp pertinent déglul yonent yàlla Isa li may nettali am na ñu ko boole ci israiliyaat yi parce que texte bu wér ñëwu ci yonent yàlla Isa dafa am kum àndal di def siyaaxa di doxant pour ma wax la ni àdduna du dal li imaam wax bi nu àndee yonent yàlla Aysa ni ko fàggul lu nu jëfandikoo ci tukki bi waa ji wut ñetti mburu mu ànd ak yonent yàlla ñuy dem ba ci yàgg yonent yàlla Aysa ni ko xaar ma ma dugg def ay nawaafil ñëwaat yonent yàlla Aysa dugg def ay jaamu yàlla ñëwaat ni ah waa ji daa mel ni xaw na noo xiif de génneel mburu yi ñu xewlu bala ñoo continuer waa ji génne ñaari mburu te ñetti mburu la woon yén taala Aysa ni ko ana beneen bi mu ni ko gisuma ko ana beneen bi gisuma ko waxu ko dara ñu kontine lekk seen mburu continuer bi muy dox ci yoon wi mu gis benn gumba yonte yàlla Aysa woo gumba gi mu ñëw mu teg ko loxo bi mu xool waa ji yéemu mu ni ko ki ma may lii kantan gi kii gëmm ma teg ko loxoom mu xool wax ma ki jël beneen mburu bi mu ni ko xawma ma ko ñu continuer dox ba ci yàgg gis benn dex bu ne seen diggante fi ñu jëm waa ji ni ko nu ñuy def gaal yi wàcc nan de mu téye ci loxo bi ni ko bismillah ñu yéeg jàll géej gi dox dem bi nu génnee mu ni ko ci màggu ki ma may lii xamal ma tur wii ba ma dox ci géej gi wax ma ki lekk jël beneen mburu bi mu ni ko xaw ma ko ñuy demaat yont yàlla benn aysa benn picc romb ko mu woo mu ñëw mu rend ko ñu xewlu ba seeñu yax yi mu jëlaat yax yi dóor ko ni ko jógal ci ndégalu yàlla mu jug naaw mu ni ko ci màggu ki ma xamal lii mu yàlla wax ma ki jël beneen mburu bi mu ni ko xaw ma ko moo tax am na ñoo xam ni dara waaru leen dara waaru leen dara ñuy dox ba ci yàgg ñu toog di noppalu yonent yàlla Aysa jal ñetti jali suuf dóor ci benn bi muy or mu dóoraat beneen muy or mu dóoraat beneen bi muy or mu ni ko bii maa ko moom bii yow yaa ko moom beneen bi nag ki lekk mburu mi bu ko xamee ñu jox ko ko mu ni ko maa ko lekk adul yaa mi tax nuy xaar di toog ngoon te moom jóg daa sax ci mi neew ngir du kay bàyyi muy dal baa adul yaa mi tax nuy xaar di toog ngoon te moom jóg du sax ci mi neew ngir du kay bàyyi muy dal baa kon kon kon jëlal ñetti yëpp ñetti jali or yëpp jëlal may naa waaye nag tey lay tàqalikoo ak yow monsieur le maire ñu ngi lay ziyaara tey lay tàqalikoo ak yow déglul waa ji waa ji daal jël ñetti ñetti ñetti ñetti jali xe or yëpp téye baax na mooy nit ñi dégg bismillah mooy nit ñi dégg du kay bàyyi muy dal ba talla du sax ci mbindeef ngir dee du koy bàyyi muy dal ba anu yaa di daanuy xaar di tàngoo te wóolu dal du sax ci mbindeef ngir dee du koy bàyyi muy dal ba kon na njiin moo di yaaram mbaa duniya bi daanuy xaar di dongoo te moom du dal du sax ci mi neef ngir dee du koy bàyyi muy nal ma trente minutes moo ma dese dix heures et demi laay tas jàng yi trente moo ma dese man déggal imaam ñëpp toog adduniyaa bi tax ñuy xeex. adduniyaa bi tax ñuy xeex. di dongoonte moog moom dara. du sax ci mbindeef ngir dee. du koy bàyyi muy dal ba. xoolal waa ji jël na ñaari doyu or yëpp ñett yëpp daal di bokk. instant yooyu kontaan na bëgg na. aha parce que adduna benn période léeg-léeg nga bëgg. wallaay yonent yàlla Aysa bàyyi ko fa dem yoonam waaja ba muy bég di xalaat pour nu mu transporter alal ji am ñetti nit yu fat war fas ku ne war sa fas yem ci moom dégluwaay bi nu yemee ci moom ñu gis or beeg alal ji ñu daldi wàcc rey waa ji ana alal ja demul ñoom ñett ñuy suñ affaire baax na ku ne jël benn waa ñu ni ñaar ñi déeyoo ni te ñoo rey waa ji rek benn bi des ñu seddoo ko ñu ni waaw ñu ni kon nañ ko yónni ñu ni waa ji demal yónni marché ba jënd la ñu lu xewloo waa ji dem gars yi ni bu ñëwee nan ko rey pour jël lépp waa ji ba mu demee ci marché yi moom it xelam dem ci ah teema posé ne gaa yi rey leen bu ko defee ma jël ñett yëpp cey moom it mu jënd ñam wa pose ne ko ma ngay am yéene pour rey leen ñaar ñaña ngay am yéene pour bu ñëwee ñu rey ko egsi na gaa yi rey nan ko séddoo nan alal ji ni xaaral ñu noo soog a continuer ba nu xéewloo ba pare ñoom it ñu daal di yonent yàlla Isaa ma doxe woon ay soxlaam ba mu tourné yam ci ñoom ñépp ñu daldi di dee alal ji nekkaat fa moo tax alal ji lu mu bari bari loo ci barile barile kenn du dee yóbbaale ko boo deewee dan lay sàng perkaal dugal la ci bàmmeel moo tax alal ji moomoo ko ndinkaane la moo tax yàlla ni bu deewee nanu ko donn ñi la doon nu jël alal ji buñ deewee ñu donnuwaat leen buñ deewee ñu donnuwaat leen ba keroog yàlla di wël bufte gi moo tax problème bi am ci jamono yépp mooy bëgg àdduna moo tax ñu tas mbokk gi moo tax coow yi bari moo tax yàlla génn ci suñuy xol moo tax imaam ni adduniyaa bi tax adduniyaa bi tax dum du sax ci bi def ngir du koy bàyyi mooy normal ala gaa ja reeroon yaa la jëy leen ci duniyaa ñi dañal seeni fas tey xee di bàkkoo melaw buur baaya duniyaa bi du sax bi def du koy bàyyi mooy dalba abada nanu tey génne na leen ca seen kër yaa alal jaag njaboot ga tey nu ngay wéet ca bàmmeel ba ñëpp tey jéege na leen tey na seen kër yaa alal jaag njaboot ga tey nu ngay wéet ca bàmmeel ba lalu bàyyi tey ci mbooleem alal neel du leen jariñ lu dul jëf ju baax mooy ñëw taxaw tey di soppeem baax mooy li musal jam ci bàmmeel kon nanuy farlu ci faalam lu nuy mën ca dénkam baax walaay saxlaan ci zikru lu gëm yàlla gëm baay laay la ngin moo di yaaram baax jëf ju baax rek moo lay jariñ sëriñ ba du la jariñ kenn du la jariñ yow ak sa jëf rek la waaw lan mooy gëm yàlla gars yi koy wax rek du nu dugg ci détail yi waaye gëm yàlla mooy al i'tiqaadu bil jinan wal nutqu bil lisan wal amalu bil jawaarix yasiidu wa yanxus gëm yàlla mooy da ngay fas ci sa xol yàlla day nekk ci sa xol te yàlla bu nekkee ci sa xol iñaan génn na soxor génn na yàlla du ànd ci xol iñaan bu xol yàlla du ca nekk fen yépp jëw yépp tey génn yàlla soog a dugg nutqu sa gémmiñ gi lu baax rekk ci génn koo gis ci réseaux sociaux yi muy saaga ko wax lu bon sori na gëm yàlla sori na ko amu ko wala amalu bil jawaarix tey feeñ ci cër yi cër yi loxo bi tànk bi lépp jaamu yàlla gi da ciy feeñ waaye nag tey yokku di wàññeeku mbokk yi gëm yàlla dina wàññeeku ba jeex waaye dina yokk ba kawe lool xam ngeen ni ki ki nga topp ci ginnaawam mu waddal cinq nga topp ci ginnaaw monsieur le mu waddal dix nga for dix def sa poos continuer am ku topp ci ginnaaw nit mu waddal cent mille mu jël cent mille yi woo borom ni ko am xam ngeen ne ñaar ñu gëm yàlla. déedéet bokkuñu. moo tax gëm yàlla dafay wàññeeku ba jeex. waaye tey yokkute amul limit moo tax boo gisee mag ñi manoon ñu ci lépp mooy seen gëm yàlla moo kawe woon te am doole. demal ci xaswatu mutata xare boobu xare bu metti la ci saxaaba yi. pour wax la ñoom seen gëm yàlla ni mu élevé woon ni mu kawee woon keroog xare bi fa la fekk yonent bi mi ngi dund waaye demul dafa yàble yonent bi